Cheikh Makhtar Diouf jëwriñ du kuréel julli géej gi. ok ñu dem ci li nga xam ne mooy euh, julli géej gi tey CRD def ngeen ko am lan ngeen ci jàpp tamit ak lan promotion su la leen ñi nga xam ne ñu joote nguur jox leen ngir ñu am ci anam yi waaw CDD la ñu def du CRD CDD la c'est-à-dire mooy suivi sur le terrain defoon nañ CRD semaine dernière léegi ni ñu def CDD bi en présence de de madame le préfet Euh, kilifa yi nga xam ne ñëw nañ teew si ko muy monsieur maire Moussa Sy ak ministre d'État fekkee ko ak service technique yëpp ñëw nañu xool madame le préfet dirigé na réunion bi comme ni ko ministre d'État waxee avec brio euh, xool ndegam li ñu promettoon ci CRD ba ak lañ defoon daaw yan problème ndax problème amul luñ ci war a yokk yooyu yëpp coordonné nañ ko te yëf yaa ngi tegu ci yoon ñi ngi am yaakaar yan mooy moo leen gën a farataal yéen li ñu taxaw leen. fi mu toll li ñu gën a farataal mooy accès bi mooy circulation bi ak accès bi gis ngeen travaux yi. travaux yi moom moo moo ko waral waaye travaux yi nag dañ ciy sant yàlla ndax réew day jëm kanam. lii ouvrage la ay ouvrage yoo xam ne ça coûte des milliards euh, wax nañ ko waaye nag dañuy xool léegi nan la ñuy mën a coordonner loolu ak sunu bis bi te Ageroute a ngi ciy travail sécurité a ngi ciy travail madame le préfet coordonner loolu monsieur le maire Moussa Sy am na ci ay xalaat yu mu joxe xam ne ay réunion danañ ci am yëpp pour ñu nit ñi gën a xam euh, nuñ ko war a doxal. en français dans le cadre de l'organisation qu'est-ce que vous attendez de plus par rapport aux préparatifs Nous rendons grâce à Dieu et nous disons que dans l'ensemble, nous sommes satisfaits car nous avons eu à tenir un CRD la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, comme l'a promis les autorités, Madame le Préfet est venue diriger un CDD. et pour la coordination et le suivi. Donc je pourrais dire que dans l'ensemble, vraiment, nous sommes satisfaits. Notre inquiétude, quand même, euh, euh, se, situe à, au niveau de l'accès avec les travaux que vous avez vus, mais la Géroute nous a rassurés, mais néanmoins, nous allons faire le suivi, bien sûr, sous la supervision de Madame le Préfet.